ràññee ci suñu kilifa sëriñ Mouhamadou Xabaan mu Cheikh Mouhamadul Murtada ak sëriñ Sidi Ahmed moom Cheikh Mouhamadul Murtada ak suñu ustaaz imaam Cheikh Gueye ak mbooleem kilifa yi toog ci kanam ñuy nuyu bu baax a baax sëriñ xaadim di ko sargal ci jotaay bi di ko ci ndokkeel moo mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo amoon xalaat bi di ci yëngutu di ci def seen waxtu di ci def seen doole ba suñu boroom di ko jëmmal ñuy daje fi di gis jeexit yi ñaan suñu boroom mu nangu lépp ca def ko yiw ndax bu ñu àggee fii tey maanaam jotaay bu mel nii nag taxawaayu sëriñ xaadim am na ci solo lool lool lool dafa bokk ci ñi di ñiy xalaat ne waruñu yam rekk ci di théoriser di wax lu baax loolu baax na waaye boole ji di ko jéem a jëmmal loolu yàgg naa nekk yitteem euh, kon dana jaadu ñu sargal ko ndokkeel ko ak mbooleen ñi nga xam ne ñoo ci doon yëngu bi mu tàmbulee ba agsi fii ak ñi ciy jàpp ñépp duñu guddal lool ci présenter euh, waxtaan wi ak ki koy waxtaan ndax jotaay bi ci boppam présenté na waxtaan wi ndax ku ne xam na ne li ñu fi dajale mooy solidarité dimbalante solidarité boobu bokk ci li taxoon a jóg xikma muy fexe ba participer ci développement société bi développement réew mi fexe ba participer ci wàññi fi walla jële fi ak ñàkk mu bokk ci jumtukaay yi nga xam ne nag moom lay jëfandikoo ngir mën a amal mission boobu mooy yi lislaam indi te muy lu am njariñ lool doon loo xam ne buñ ci taxawee jëfe ko ni ko lislaam bëgge mën nañ fee jële ak ñakk loola nag daf ca bokk lii di azzakat muy azaka kon waxtaan wi ci ñaar yooyu la taxaw jëmmi solidarité moomu ak nag azaka naka la nekke jumtukaay boo xam ne ci gën a am solo la yoo xam ne lislaam ci la tabax solidarité bi war a dox diggante doomu aadama yi kon jëmmi thème bi ak li mu ëmb dañu koy bàyyee ki nga xam ne mooy conférencier bi nga xam ne moom lañ tànn muy docteur Abdoul Karim Diaw yaakaar naa buñ ko tànnee ci thème bu mel nii lu yell la dafa jëm ci lislaam indi ngir jële fi ak ñàkk ku ne xam na ne léegi finance islamique tubaab yi sax ñu ngi koy njëkkante banque tubaab yi ñu ngi am ay section yu jëm ci finance islamique ndax dem nañ ba xam ne jafe-jafe yi àdduna bi dund ci wàllu koom-koom finance islamique bokk na ci li ko mën saafara moom nag spécialité am finance islamique boobu la ndax ci finance islamique ci la am doctorat ci la def doctorat ci Malaisie ku ne xam na Malaisie fi mu toll ci wàll googu ci domaine boobu ñi ci gën a avancé ci àdduna bi lañ bokk waaye am ci doctorat yemu ci waaye ay activité ci la ko jëmee ndax jamono ji ñuy wax yore na cabinet boo xam ne day def conseil ak formation ci wàllu finance islamique waaye CESAC ku ne xam ko muy barabu formation bu mag bii programme finance islamique yi nga xam ne moo fi nekk moom mi mooy responsable programme yooyu kon jàpp naa ne moom placé na pour wax ci solidarité waaye wax ci azakaat kon du ñu guddal dañu koy jox kàddu gi rek euh, déglu ko teewlu ko yaakaar naa ne dinañ ci jëlee ay njariñ yu baree bari ndax xikma yemul rek ci jëf waaye dafay boor di sensibiliser di xamlewaale ndax nit ñi bu ñu xamee rek dana yokk seeni taxawaay kon jërëjëf ñu jox kàddu gi docteur Abdou Karim